فجأني بما به فجاناك باق مميت والبقاء جانا فجأني بما به فجاناك باق مميت والبقاء جانا فجأني بما به فجانا باق مميت والبقاء جانا فجأني بما به فجانا باق مميت والبقاء جانا قولي قول يحجل المرجانا والدر والياقوت والسجانا للواحد القحار من لي بانا كوني لحو حمدي بما استبانا الحمد لله الذي أحتانا الحلم والحمل والأوطانا له شكري وكفى الشيطانا كفاية الباقين ما أطانا حمدت حمد الحامدين لنا بالقلب قالقا وراء مولانا محى الفرا والذحذح الفتانا وذكر الحكيم قد آتانا دعوته وقبل لي ألانا قلب الذي حسدني فلانا لؤلؤ قطابي ورم شاناك وزان لي عند الغدا ما شاناك لك وجهنا aouzu billahi mina shaytaani rajim bismillahi rahmaani rahim asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu mbokki jullit mbokki taalib yi ngi leen di nuyu di leen ziara di baalu àq di baalu àq ñëpp di am rek tout lu ñu expliqué maanaam nu ñu leeral. ba léegi dafa nekkoon ci ay traabo waaye yàlla def na lépp ci travaux yi àgg na ba biig ci guddi la sëriñ bi joxe ndigal ñu ubbi ko ba ñépp mën cee ziara. loolu tax na ñëpp ñi waroon di siyaare ñi ngi siyaara kenn ku ne gis na ni ndax nit ñi dañoo namoon sëriñ bi namoon sëriñ Fàllu ba tax ñoom ñëpp ñu ñëw yàlla def na nag liggéey bi dañ ko dénkoon turandoo sëñ Fàllu yi ñu doon ci dox bu baax a baax kenn ku ne xam na ne déggoon na ñuy laaj turandoo wu ne fukki junni wu góor juróomi junni wu jigéen waaye nag bi ñu demee ba euh, ba laaj ba nga xam ne war nañoo tàmbali liggéey bi ñu nee nañ ci dugal soppe ngir mu gën a gaaw ci la ñu amoon mbéyum taalibe di lépp muy Abdoulaye Sylla ñu bu directeur président directeur général bu ECOTRA ñu demoon ci moom ko soppi suñ la tali bi suñ fallu ñu waxoon ko pour mu participer ci bi ñu ko waxee nag mu la mu woo ma ba ma ñëw ne ma dama bëgg bis bu may ñëw sama bureau nga ànd ak architecte bi koy liggéey bi ma ñëwee bureau am toog ma ak architecte bi architecte bi di Abdoulaye Dramé doomu Alaaj Dam Dramé mi nekkoon secrétaire particulier bu sëriñ bi bi ñuy ñëwee mu ne la maa doon laaj liggéey bi naata la ma wax ko ko architecte bi wax ko ni mu doon ci xaalis mu ne ma sëñ Fall daal ñaar laaj ci duggee jox leen li nga xam ne moo moom la architecte bi wax ne moo koy liggéey wala ngeen bàyyi man dinaa ko liggéey su ma ko liggéeyee dana taxaw taxawaay cinq étoiles ma ne ko kon liggéey ko moom ko liggéeyee nag ba léegi benn dërëm ab kenn demu ci lépp moo ko jël en charge liggéeyal ko boppam ba mu àgg nii mel nii tey xol yi si lii lépp seet si xol yi murid yëpp xol sedd xol yi taalibe yëpp sol sedd ndax Serigne Fall dafa liggéey Serigne Touba xam ni lii jomb ko bi loolu amee nag ñu koy gërëm di ko sant bu baax a baax di sant it yi nga xam ne participé woon lii nag Abdoulaye Sylla président directeur général bi ICOTRA moo ko jëloon en charge liggéey na ko ba mu mel nii xol yi jullit yëpp sedd nañ xol yi taalibe yëpp sedd nañ xol yi képp koo xam ne dugg nga ci barab bi sa xol sedd kon na ko yàlla dimbale lafal ko cet may ko fanu gudd may ko wér yokk xéewalam ba lii Fallou mu gis ko ci xam naa ne dana ko gis ñu ngi koy sant yi ko ñaanal di ñaanal gëm ñëpp ñu ñaanal ko ku dugg fi sa xol sedd rek na nga ko ñaanal ñaanal Fallou yi ñaanal it Serigne Abo ñaanal njabootu Serigne Fallou gépp lii daal Serigne bi mooy li nga xam ne mooy mooy liñ ci bëggoon wax ñaareel bi itam ñuy lancé appel nag di ñaan président de la république mu jàppale waat Abdoulaye Sylla ndax nit la koo xam ne mu ngi liggéey société bi waaye mi ngi liggéey ci yoonu murit ndax ku gis li nga xam ne moo ko def barabu sëñ Sidi Mokhtar bi ma nga ca di ko liggéey mu murit bi gis nga ko ko lu mat un mois ngi nii oto yi nekk bi di sëkk di roñ ndox mi di def lépp te kon lépp mu indi gasoilam indi ay otoom def léppam indi ingénieur am def lépp ngir Serigne Touba ak dëkk bi kon kooku ku ñu war a jàppaleel ku murid di war a jàppaleel ku taalibe bi war a jàppale ku état Sénégal war a jàppale ndax kenn ku ne gis na li muy employé koo xam ne yaa ngi employé huit cent nangam personnes di fay presque cinq cent millions par mois par par mois kooku contribution ci économie Sénégal contribution ci semence Sénégal ba du am kooku mi ngi ci kon de la République ñi ngi lay ñaan nga gën koo jàppale gën a koo jàppale ak xam ne kii ku liggéeyal Sénégal waaye kuy liggéeyal yoonu murid la te ko jàppale Serigne Touba dana jàppale ñi ngi sant ñëpp nag képp koo xam ne yëngu woon nga wala nga joxe sa dërëm moo sa dugg fii moo xam ñi doon eh, laaj ku lu ci mën a joxe ñu toggal añ wala ñu togg reer ak ñi nga xam ne togg nañ ci añ indi ko fii ak ñuy togg laax andi ak képp koo xam ne daal mas ngaa def dara ci biir barab bi yàlla na Serigne Fallou fayal boppam yàlla nañ Serigne Touba leeral yàlla nañ ki xam ndaje ngërëmam lii nag Serigne Fallou mënu koo ñàkk bañ am ngir keroog ba mu liggéeye barab sëñ fàllu bi wax nañu sëñ am satu jaxat daan ñëw jël parfum bu di wër sa barab bi di ko sotti di ko sotti ne ko Cheikh Mamadou Fadal yaa liggéeyal sama waa ji lii mu ne ko waaw mu ne ko yaa liggéeyal sama waa ji lii mu ne ko waaw waaye damaa bëgg nga xam ne bàyyi bàyyi am sa mu ne mu ne ko lii day eh, jamono toll nu tollal ko waaye bu ko weesoo nu weesu ko loolee moo ko defal lii tey moo ko may lii tey kon liggéeyal sëñ Tuubaa rek moo maa ngi sañ itam taalibe yi képp koo xam ne gis nga lii ëllëg ñu xam noo xam ne war nañ koo mën a def ci siyaara bi siyaara dal ak teel lu bees la dugg totalement nga xam ne yu ci des ci ñu koy indi ci ñu koy daanaka li nga xam ne moo ci des yu sew sewaan mën cee duggoo nit ñi bañ a amul xër bàyyi loxo yi ñu raay ci kaw ak loxo yi ñuy raay ci kii loolu loolu du dara ak xirti la rek ku ziyaare da ngay ñëw ñaanal ki nga xam ne moo tudd awalan door a am loo am sa wërsëg nga joxe ko ndax loolu adduwaaw yan fawul mayitu fu xubóor la sëñ Tuubaa waxoon waaye yan fawul ay dana jëriñ aj dul kon loolu sëñ Tuubaa loxoon nañ ko ñaanal ñaan mooy li ëpp solo moo gën loolu ku nekk jàng ay fukk xulu ak ñaar door ñaan say soxla war a wax loolu mën a def bu ko defee nag ñu woo sàmm liggéey bi sàmm liggéey bi ba ñu xam ko ndax ay weer a ci nekk ñu fexe ba benn weer bañ cee toj ndax cher na ndax ma nga jóge bu siin ndax liggéey bi ju fukk juróomi ñeenti pays liggéey na ci boo gisee weer yi ak giri bi lépp ak pavillon bi ma nga jóge siin ak boo gisee karo bii ma taxaw mi ngi jóge Iran ci lañ ko commandé boo gisee euh, euh, euh, li ci biti mu nga jóge Dubaï boo gisee lamp yi muy lamp boo xam ne kenn ku gis na ne ni muy en or damay wax ne borom barrière or ba ca Medina sëriñ yonente bi alayhi salaatu wasalaam lañ koy wax waaye borom lamp or ba ca Touba Cheikh du Fadal la kon nag ñu sa am ma sant jàpp ci ñëpp xam ne mbir mi sunu mbir ñu jàppale ci xam ne bu yàqoo nun la yàqul waaye kii moom li ko waroon def na kii liggéey liggéey na rafet na waaye nañ ko sàmm ba moom mucc ay toll fa mu war a toll kon nag ñuy sant ñëpp di gërëm ñëpp di ñu ci ñaanal ñi nga xam ne ñoo ci doon yëngu di ko liggéey ak ku ci def ak ku mën a doon yàlla na la sëriñ Fallou fayal boppam wasalaamu aleykum wa rahmatullah حروف ذكري ضلالي كما تجود لي بالحلال جاد لي الباقي بما لا ينفد كما اشترى مني مبيئا ينفد كتاب ربي يا رفيقي أبدا به كفاني الله من لم يعبدا سلامة الذي يدود بالحليم وبالنبي بي من المنفعلين شكرت من لي لا يوجئ الكدر في أبد وقادني بسر القدر شكرت من لي لا يوجه الكدر في أبد وقادني بسر القدر لله قد فوت أمري مؤمنا ومسلما ومحسنا ومدمنا علي من ببقاء وصحح وقادني كتابه مع صحاح لوجه الكريم ذحذح الكدر إلى سواي وصفاني القدر لم ينحني در ولا أدناس وليس ينحو جئة القناس كتاب ذي الجلال والإكرام قالتني وقادني مرامي مد لي القل غنى عن غيره وكان لي الحب بأعلى خيره ترسي عن الغدب والضلال رضا العليم الباسط الحلال الأحسان فرحت سيد الورى بقطي وإنه لي رضا ذمتي لم يخفى كون هذه القصيدة حقيقة تعطي الفتى مقصودا هوت منافع السنين والشهور خالصة لوجه مالك الدحور وجاءني الجميل في دنياي ببصر مقلدا صنيايا ناجيت رب العالمين مؤمنا ومسلما ومحسنا ومدمنا